asalaamaaleykum gars yi na def maa ngi leen nuyu di leen ziar leen fàttali yéen seen canal Galsen Tube la chaîne des youtubeurs ci seen programme comment gagner de l'argent YouTube naka koy defal di Pape Mor Lo ñu leen koy defal en wolof. vidéo tey bi nag euh, demande de monétisation 2023 waaw moom la ñuy wane parce que bu ngeen euh, fàttali ko defoon nañ ci ay vidéo euh, YouTube 2023 bi nay changement yu ñu def ci page bi nga xam ne mooy page demande de monétisation bi dafa am ay changement waaw moo tax li ñu def ci ñu def ci ñu bëgg def vidéo bi def ko mise à jour defoon nañ yeneen vidéo demande de monétisation mais yooyu comme page bi am na différence euh, nit mën na toll ci demande de monétisation dugg ci xaw a réer moo tax ñuy def vidéo bi pour euh, mise à jour waaw bii nag mooy euh, première partie bi léegi boo boo yoree chaîne boo xam ne matal na abonné yi romb na 1000 abonné 4000 heures ba nga xam ni apte nga pour demande de monétisation da ñëw xam nga ñoo ngi ci bi nii da ñëw fii ñu def revenu revenu fii dollar bi nga cliquer mën na bind revenu mën na def tam symbole dollar su fekkee sa daf kii bi dafa tëju nii voilà bu fekkee dafa tëju nii symbole dollar rek lay affiché mais c'est la même chose rek voilà hamburger boo cliqué mu ubbeeku boo bu fekkee dafa tëju nii lay symbole dollar nga ñëw nga cliqué ko voilà ñu ubbiwaat ko pour muy feeñ rek voilà mu ngi nii feeñ léegi boo ñëwee monétisation boo cliqué revenu mu indi la page bi ñu demandé monétisation gis ng page bi dafa am ay changement xam ngeen melul woon nii voilà gis nga léegi ni ñu ko ni ñu ko tëggee ni ko tëggee gis nga fii mooy euh, euh, élisibilité bi da ngay matal 1000 abonnés seen bi romb na 1000 abonnés da ngay matal 4000 heures seen bi romb na 4000 heures comprendre nga da ngay respecter li nga xamante ne moom mooy euh, réglement yi nga xam ne mooy validation YouTube bi mu tekk réglement la si monétisation mooy seen bi il faut ñu def ko validation deux étapes ak numéro téléphone seen bi def na ko moo tax fii mu verte. bi mooy euh, respecter règlement communauté amoo benn réclamation bu jëm ci règle de la communauté règle de la communauté mooy youtube yi muy bañ ay violence affaire ay sexualité ay euh, yu demee noonu affaire ay euh, nudité ay loo xam dafa jëm ci dafa sensible ci ay xale boo ko dugalee youtube mën na la jox réclamation supprimer vidéo ba ne la lii kat dafa jalkati suñu ay règlement loolu boo ci amee benn boo xam ni dañ ko supprimer vidéo bu ñu supprimer règle de la communauté te matul quatre-vingt-dix jours muy trois mois YouTube dalay bloqué doo mën a demander monétisation fii ak matul euh, quatre-vingt-dix jours ba réclamation bi deñ su fekkee nag maanaam matal nga mille abonnés day def mu verte matal nga quatre mille heures mu verte def nga validation deux étapes mu verte ñu bëri nag fii dinañ jóg fii verte fii verte fii verte parce que yii automatique la boo matalee automatiquement day verte fii fii nga matal automatique mu verte fii nag yaa a activer xam ñu bëri bu ñu jógee fii benn lañ fiy gis fii nii benn kànnaar mu la ni maanaam chaîne bi tëjoo ko sécuriser woo su ko defee da ngay cliquer dina la yóbbu page bi nga koy sécuriser nga dem sécuriser ko boo ñëwaatee di nga fekk mu vert comme nii voilà noonu la léegi nag ñuy yéegaat ci kaw fi ñu war a defee demande bi fii nga ñëw fii s'inscrire nga cliquer fii s'inscrire voilà bu ñu cliquer s'inscrire gis nga indi nañu page bi nga xam ne mooy page de demande de euh, bi page bi moom changé wul toujours mooy deuxième étape fii lay ñëw deuxième étape bi trois parties la première partie bi lañ la ñu wax dañuy accepter conditions yi nga xam ne moom la YouTube conditions yëpp yi mu tënk pour ku bëgg a bokk ci monétisation il faut contrat la il faut nga signé ko comprendre nga voilà. léegi nag deuxième étape bi lan la mooy dañuy créer compte AdSense troisième étape bi YouTube day vérifier contenu vidéo yi nekk ci chaîne bi ndax vidéo yi respecté nañu règlement YouTube. loolu mooy comme li ñu wax sànq maanaam conditions YouTube respecté ko bi ci ëpp solo nag mooy ndax vidéo yi nekkul vidéo yu ñu copier waat dugal ko copier ko daal fenn foo xam ne YouTube gis na ni am na ci YouTube ba pare boobu moo ko si gën a yitteel nag voilà. léegi bu ñu jàllee bii bi moom tey lañ koy def nii automatiquement mu jàll bii bu ñu ko lancé après dinañ xaar ñu accepté ko parce que bu ñu ko lancé mooy lan dañuy demandé euh, AdSense AdSense bu ñu ko demandé ubbi ko foofu tamit étape 2 bi du automatique lu tax du automatique mooy waa AdSense dañuy vérifier ndax. Euh, chaîne bi boroom amul AdSense ba pare lu tax parce que waa AdSense dañuy tere ku am ñaari compte AdSense boo amoon junniy seen YouTube war a leen monétiser waa AdSense benn compte AdSense lañ la autorisé benn email bi nga njëkk ubbi AdSense moom doo nga am am droit am AdSense boo bi woon tam junniy email email bu ne nga def ci seen YouTube ñoom ñëpp ci benn AdSense bi nga leen war a monétiser loolooy règlement bi donte nag am na ay contournement yoo mën a def euh, expliqué woon nañ ko ci YouTube bi wax nañ ko tam ay vidéo def nañ ko bi ci YouTube solution bi contournement yoo mën a def ba nga xam ne mën nga yor 10 AdSense connecté yëpp ci ordinateur bi te doo ci am benn jafe-jafe parce que YouTube du ko xam waaw loolu wane woon nañ ko ci formation YouTube solution yaakaar ni ci nekk xam nañ ko voilà li mën na nekk euh, mais règlement moom loolu daf ko tere su ko détecté dañ ñuy def lancer demande monétisation bi commencé ko ci accepter euh, li nga mooy condition fii démarrer fii soo cliquer démarrer bindal na la fi conditions yi su dee nag mën nga lire france jëlal sa temps texte bi yëpp nga liir ko ba mu egg ndax nga comprendre YouTube lan la fiy bëgg ak lan la fiy bañ ak monétisation ni muy tëddee voilà loolu xam naa waxoon nañ dinañ ut vidéo spéciale boo xam ni waa contrat bi dinañ ñëw teg ko ci wolof mais jot gi moo ñu ko mayut nag voilà te ndax dafay gudd da koy bëgg lire bëgg koo expliquer ay détails ba boobu da pare koy bëgg a expliquer mu leer ndax am na yoo xam ne ñoom dañuy tënk rek il faut nag yow nga jël temps expliquer ko moo tax texte bu gàtt mën nga ko expliquer mu jël temps bu gudd gudd gudd mais dinañ si ñëw bu soobee yàlla léegi lu ñuy def cliquer fii cosé wane ne d'accord d'accord nañ ci contrat bi waaye nag ñu xam benn affaire contrat bi nga lire ko nga bañ koo lire moo yem ci accepté bi accepté bi obligatoire la nekkul ni boo ko liiree am yoo xam ne def nañ ko neexu la da nga naan noo bi d'accord ma si contrat bi dañ la ko defar rek pour nga xam li ci nekk mais nekkul pour ñoom ñuy modifier ak ñuy def benn affaire te accepté bi tam obligation la boo ko acceptul doo mën a bokk ci ci programme bi waaw moo tax tamit su fekkee mënoo ko lire amoo jot gi tamit du lu ñëwal nga accepté parce que acceptation obligatoire soo cliqué fii wane d'accord nga ci condition yi ñu bind fii yépp nga ñëw fii nga def accepter le règlement nga cliqué ko fii léegi nag bala ñuy def accepter règlement da am lu ñu leeral fii tamit léeg-léeg ñu bëri tam bu ñu amee jafe-jafe YouTube supprimer seen ay contenu wala tëj seen chaîne ak yu demee noonu YouTube si lim ciy basé mooy contrat yi ñu la teguloon lépp lu ñuy bañ wala ñu koy bëgg bind nañ ko kon boo jalgatee ñoom dañuy gis ni maanaam yow da ngaa def li la neex noonu lañ koy gisee waaw comprendre parce que YouTube duñu calculer naan non waa ji déggul français déggul anglais ñoom def nañ ko ci langue yi xam yëpp dañ koy bind officiel li am solo daal mooy bu fekkee doo dugal loo xam ne yëfu jàmbur la doo dugal loo xam ne day am ay deret doo dugal loo xam ne ay arme da ciy génn doo dugal loo xam ne ay violence da ciy génn doo dugal loo xam ne ay yaramu neen da ciy génn doo dugal loo xam ne day choqué ay xale loo yooyu boo ko dugalul say vidéo mën naa bañ am benn problème mu nekk nag ci vidéo bi ci miniature bi ci titre bi ak ci description yi waaw sa vidéo mën na nekk vidéo boo xam ne du am benn problème waaw bu ñu ko résumé bu ñu ko dajaay dina ko dugg loolu léegi nag accepté nañ li nga xam mooy condition yi ndax tamit dina am koo xam ne dina danoo sa waaye doo continuer ñu dem waaye nag il faut ñuy leeral ñun nii la def parce comme li ma wax defuñu ay tuto ay cours la def dañuy jàngale jàngale foo toll da nga koy leeral mu leer nga ko teewloo bam jeex mu koo comprendre ba léegi dee tuto nag cliquer cliquer cliquer ngay def nit ki topp la cliquer cliquer li ngay cliquer des fois du ci xam dara noonu dañuy jàngale moo tax dañuy jël suñu temps mu leer waaw ñu xamee ko noonu pour ñu yàkkam di ñu comprendre loolu voilà léegi bu ñu accepter fii condition de base yi nga ñëw fii def accepter le règlement voilà nga cliquer fii accepter le règlement suñ ko defee léegi mu jàll defal ñu bii terminé ñu xaar voilà defal nañu terminé première partie bi mooy lan accepté nañ condition yi nga moom lañu YouTube tegal ci monétisation ñu ñëw deuxième partie bi lu mu ñu defal <coughs> inscrivez-vous à Google AdSense léegi nag mu ne ñun ñu dem gis nga xam nga waxul ubbil compte ubbil compte dañu nañ ins da ngay inscrire lu muy tekk mooy dangaa ngaa dem postuler wala nga demande rek voilà wala nga nga nga nga nga nga nga nga remplir sa joxe ba dañ ko valider voilà la léegi loolu la ñuy dem def fii la ñuy cliquer eh, démarrer bu ñu cliquer démarrer gis nga dinañu indil tableau bi toujours tableau bi lu ñuy defal daf ñuy demander mu ne ñu maanaam ndax am nga compte AdSense wala amoo compte AdSense wala wóoru la tableau bi boo fi ñëwee. fii ngay cliquer soo cliquer fii bu njëkk bi mu ne la xam nga daf question la ñuy laaj bii mun la oui j'ai déjà un compte su fekkee am nga compte ba pare amoon nga AdSense nga ne am nga compte AdSense même compte AdSense bi su dee nekkul ci email bi waxal am naa compte AdSense su dee AdSense boobu nga bëgg utiliser wala bokk su dee AdSense boobu ak chaîne bi ngay demande ñoom ñaar da leen connecté woon ci même compte Google bi ñu jaxasoo mun nga def am na AdSense ba pare rek après processus bi stop nga dugal email boobu ak mot de passe bi confirmer ko dina jël AdSense boobu connecté ko fi ci YouTube bi nga xam ne doo fi nekkaat di créer étape boobu day def terminé du def en day def terminé troisième étape bi mooy nekk en nga xaar léegi nag bu dee comme suñu kaani maanaam soit da nekk ni amuñu compte AdSense wala wóoruñu comme man seen bi dañ ma koy defarloo kon du ma ma def ni non je n'ai dama naan je ne sais moom daal di xool ba xam dina détecté compte ci Google bi ma def je ne su ba demee jeune ne ma def continuer léegi waa si ñoom ñooy vérifier ci compte Google bi détecté nañ email bi ne ah email bi de lañ gis ni moom nga connecté woo man leen waaw moom la su fekkoon beneen email la nga cliqué fii par exemple comme fi ma leen wax sànq ne boo ñëwee fii soo ñëwee fii fi mu def walla oui j'ai déjà un compte su fekkoon moom laa choisir ma cliqué mën ñu ci page bi. xam nga bii mooy bi bi YouTube bi nekk mais amul compte mais dama ne am naa compte ba pare te compte bi nekkul ci email bi fii laay cliquer utiliser un autre compte ma sélectionné beneen compte AdSense pour mu connecté comprendre voilà mais comme c'est pas le cas dañuy créer compte AdSense bu bees même email bi la ñuy cliquer suñu cliquer même email bi de AdSense dañuy vérifier AdSense bu vérifier ji nga détecté wul benn compte AdSense voilà mais nag nekkul di détecté wu ko fii rek du ko détecté su fekkee amoon naa fi AdSense tamit mën naa créer fii ba pare. léegi nag ñoom temps bi ñu jël pour vérifier nag dëggantaan ñu gis ni ah man kat am na AdSense bu ma amoon wala sama compte jaxasoo na ak beneen compte AdSense ñu bloqué ma ne ma amoon nga donte email bi moom ma ko wala AdSense moom ma ko dañuy ma koy moomale bloqué ma loolu tam ñu bàyyi ko xel. léegi nag lan la ñuy def boo xoolee def na fii turu bi euh, léegi dugal fii li nga xam ne mooy lien li nga xam ne mooy YouTube bi dugal na ko fii mënoo ko modifier parce que da ko jaaree biir YouTube fii la ñuy coché ñu def wii maanaam bëgg naa jot li nga xam day jógee ci AdSense. léegi étape bii muy sélectionner votre pays ou territoire étape bu am solo ngi nii waaw démb rek am na ñaar ñu ma jokkool ñoo xam ni problème fii am nañ ci problème muy AdSense choisir dëkk am ne waru ci ko choisir ñu bàyyi ci xel ku fi ubbi sa AdSense dem def ko France jàpp ne non ah naa ko def France rek parce que feeling la dalaa neex wala États-Unis di nga dem booba koo fale di mu tëla voilà loolu la ñu bàyyi ci xel boo nekkee Sénégal génnoo Sénégal defal Sénégal soo nekkee France defal France boo nekkee Mali defal Mali boo nekkee États-Unis defal États-Unis boo nekkee Mauritanie defal Mauritanie waaw su dee Mauritanie léegi dugg na ci AdSense parce que jamono dañ ko bloqué woon. léegi ñu dem wëri Sénégal xam nga ñëw ci baar bi mu gën a gaaw ñu dem wëri Sénégal ñoo ngi ci esi waaw waa Sénégal mi ngi nii ñu cliqué su ma cliqué automatiquement léegi mooy vérifier ba xam Sénégal moo fi nekk Sénégal moo fi nekk te wàcc. defal na ma condition Arsène si la ma defal nii condition yi tamit comme ni ñu ko waxee sànq fee rek da ngay jël sa temps nga lire ko ba mu egg su dee yàkkamti woo te nga mën lire français mën ko comprendre jël sa temps fii jël sa temps fii nga topp texte bii lire ko ba mu egg dina la fi tënkal condition bi Arsène si comprendre su condition yooyu yëpp demee ba nga lire ko ba mu jeex voilà nga ñëw fii nga coché su dee mënoo koo lire tam soteel condition ñëwal fii directement nga coché fii les conditions d'utilisation et je les accepte maanaam liir naa conditions yi accepté naa maanaam li ñu fi wax yëpp man nangu naa ko comme yaa ko nangu nag signé nga fii boo lëgee nag boo indee jafe-jafe ci AdSense ñu di la jafe-jafe waaw bul saaga waa AdSense parce que yaa ne d'accord nga ñu bàyyi ci xel léegi ñu cliquer fi nag léegi dañuy créer un compte AdSense ñu cliquer fii bu ñu cliquer gis nga AdSense daf ñuy commencer générer compte fii mi ngi vérifier ba xam détecté wul dara détecté wul dara gis nga mais détecté na adresse de paiement comprendre gis nga profil de paiement bi mu détecté mi ngi nii bii la ñu indil comprendre nga léegi nee ñu am na profil de paiement bu mu détecté léegi su fekkee ñun bëgguñu utiliser même profil de paiement bi mën nañ cliquer fii suñ cliquer fii ñu def créer profil bu bees su dee même profil bi lañ bëgg a utiliser nañ ko bàyyi fii comprendre nga voilà léegi lu may adresse bi nekk fii tamit mën nañ ko changer bu ñu neexee mën nañ ko bàyyi nii mais dama koy bàyyi nii après naa ko changer personnaliser ko parce que dama fi soxla def ay numéro téléphone ak yu demee noonu mais comme c'est pas le cas ma def ko fi mun naa ko bàyyi nii su doon nag léegi dama fekkuma fi dara nii lay def waaw nii lay affiché wu mais du fi bind dara bu boobaa yaay remplir yëpp benn par benn ba egg comprendre léegi fan la ñuy cliquer fii valider voilà ñu xaar mu rediriger ci beneen page. voilà rediriger nañu ci page YouTube bi léegi lu mu ñuy defal day def après terminé ñu xaar wala mu def en sax en cours waaw <laughs> en cours que fàtte naa ni waa ñoom dañu war a jël seen temps waa vérifier ko voilà mi ngi ni en léegi en bi mu def nag ñun fii la ñuy euh, pause vidéo bi ba gis mu def terminé ñu ñëw continuer ko su fekkee tam def ñu defal non non mënuñu la ubbil AdSense ndax tey dañoo détecté nangam ak nangam ak nangam ñu ñëw wax lu tax ban problème ñu wan leen ban problème la ñu signalé après corriger ko comprendre nga su fekkee nag dafa jàll mu def terminé automatique automatique bu ñu ko bu ñu ki suñu beneen AdSense ñu def ni terminé bàyyi nañu AdSense mu jàll bii ci suuf ñun duñ fi def dara troisième étape yow doo fi def dara automatiquement lay déclencher boppam def en cours en cours bi nag mën na diire vingt quatre heures mën na di dem ba une semaine mën na ko ëpp voilà parce que délai bi maa mi ngi nekk trente jours. pour ñu valider AdSense wala ñu bañ pour ñu valider YouTube wala ñu bañ ko valider mais li ci ëpp su dee lépp normal na mën na te nekkul week-end mën na bañ a paas sax 24 heures quoi wala 48 heures des fois voilà ça dépend rek ci compte yi ak agent yi nga dajal léegi boo defee bii bu defee terminé automatiquement bii day def en cours su defee en léegi-léeg sax mën nga mën nga bii mën na nekk en cours nga déconnecté ne naa xaar xëy na bu suba ma ñëw xool suba nga ñëw di xool ñun la monétisation accepté fekk ci diggante bi AdSense bi yàlla na ba bi nekk fi en cours ba ñu vérifier ko ba accepté ko nga ñëw di connecté di xool comme nii mën naa ko bàyyi nii tey maa ngi ci connecté 11h mën naa ko bàyyi ba suba ci suba gi 11h ma dugg di xool AdSense fu mu toll ñëw fekk ñu ne monétisation bi accepté ko mën naa dugg tam suba ñëw di vérifier ñu gis defal ma fii terminé na fii mi ngi en su ko defee nga patienté xaar mooy dañuy vérifier contenu yi kon vidéo bi dañ koy pose fii euh, après suite bi lu ci mën ci topp rek ñu ñëw ba continuité wan leen euh, li ci topp jërëjëf.